xaadim moom Cheikh Mouhamadul Amin xaadimu rasul euh, ñoo ngi lay nuyu di la ziar tey ñu fekk la ca tànk ya nga daan dox rek di tànk lislaam ak tànk boole ñëw jaalas si ki nga xam ne moom mooy Abdoul Aziz Ndiaye. waaw jërëjëf Bour maa ngi lay delloo nuyu ak ziar baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, tey ñëw di kuréel gi boole tarix yi nekk Sénégal yëpp yaakaar na ñëpp xam nañ ko euh, ñu ñëw jaale si sunu xarit sunu frère di Abdoul Aziz Ndiaye mi xam ne sëñ Abdoul Amin moo ñu gën a boole ndax kenn ku ne xam ne AIS sëñ Abdoul Aziz Amin bokk nañ ñi nga xam ne ñoo ko taxawal ndax ni ma koy waxee saa su ne ndax euh, jëf ju baax kenn du ko sakk waaye mën naa wax ne suñu siège social bi nga xam moom la ñu yoroon fii Dakar gannaaw yàlla euh, moo ñu daan jàppale yëmul fa waaye yëkkati doomu Sidi Ahmed si mu nekk suñu secrétaire général ngir xam mission bu noble bi nga xam ne AIS moom lay taxawee ngir boole tarixi ak nekk benn waaye sàmm patrimoine suufi kon bu ñu nee ba njabootam doomam taalibim xaritam léppam soppeem am natt wàcc ci kawam dañoo fekkoon ci tournée sax ndax AIS dañu dañuy waaj benn forum ñu nekkoon ci tournée nationale xool xalifa généraux yi ak daara yi ndax ci lañ ko jëmal waaye dañoo bàyyi lépp ngir ñëw bokk ak moom naqar wi waaye bokk ak moom tiis bi nga xam wàcc na ci kawam tey nag ñu ñëw di ko bisum ñaan bi tey gis na Sénégal yëpp fi daje moo tax kuy ànd àndal ak nit ñi ci ngor ànd nit ñi ci baax te tey boo fi ñëwee kenn desut tarixe yi way way adduna yi ñëpp daje fi tey loolu mi wund mooy Abdou Aziz eh, maanaam raf mi ngi mi ngi rafetal diggante meg maanaam ànd bi mi ngi rafetal diggante meg doomu aadama yi loolu nag doomu aadama yi moom eh, mën nga leen a eh, maanaam mën nañoo xool fu leen neexut mën nañoo dégg lu leen lu luñ bëggut waaye jël seen tànk yëkkati ko teg ko fenn nag foofu day fekk ngay ji leen ko kon Abdou Aziz lii nga xam ne moo afe am tey euh, dëgg la natt la waaye mel na ne euh, natt bi sunu borom subhanahu mujj na ko soppi ci moom lu mu ko defalee te yàlla da waxoon na bashiri saabiriin idaa asaabahum musiibatun qaalu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kon yàlla na ko yàlla boole ci ñooñu tey daal ñëw nañ Buur indi njaalu ay yes kilifa diine yëpp tey Sidi Ahmed ñëpp fi ñëw macha allah tabarakallah waa Touba ñëpp ñëw nañ kon daal euh, lii mooy Sénégal Sénégal euh, mooy li xam mooy ànd jàmm ak salaam ku am tiis ñu ànd ko yow ku am bànneex ñu ànd ko yow kon ñii ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam ñu yàgg dund jàmm ak salaam yàlla gëjël fi lii ci barke sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi a ngi ngay deftal mbokk yi lay seetaan waa jërëjëf maa ngi leen di ziar di leen nuyu di jaale Abdou Aziz ak nga xamante bii mooy bàyyam bu baax bi yal na yàlla guddal fanam ak bokkam yëpp ki dem nag yal na ko yàlla yërëm te tàbbal ko àjjana ci barke Seydina Mohamed waaye tey damay wax ni réew mi kenn desut Sénégal ñëpp a ñëw président de la république son excellence monsieur Macky Sall li mu am lépp yeble na ko ci dëj bi Géejawaay ñëw nañu Pikine ñëw nañu képp koo xam ne bokk nga ci njabootu làmm ñëw nga ak opérateur économique yi ak ñi nga xam ne ay promoteur waaye Aziz nag tubaarkàlla njaay dadi ñi fi daje di communicateur bu doon ku mu teral nga dagg benn nopp kon communicateur yëpp bu ñu ñëw benn nopp la ñuy dégg Aziz baax na yaru na am na yëg am na personnalité am na fula am na fayda te tabe na bésam bii tey ku ne ñëw na fi ñi ngi ñaan daal njaay bésam bi nga xam ne tiis la tiis nag yàllaa koy teg jàmm aw naqar nit a koy def nit nga man koo jàmbat wala nga mën koo dindi wala nga man koo fay wala nga mën a jéggale waaye tiis wii nga xam ne kër gu mu dugg bu génnee nee du gëneen kër muy kan muy muy muy ki yàlla yebal muy mawti mawti ak ab yónneenam day yegg du dëpp mukk kon mawtee ñëw fii rek mawti dina demaat feneen kon daal yal na yeex ñuy ñaan Aziz yal na yàlla guddal fanam Ndiaye lépp lu mu gis daal du xaalis du matériel du pouvoir xam nga lan la jukko akub judd te kañ ndey jëkk bismillah min seytaani rajim yàlla ma sell ala sayyidina Muhammad rasulullah alhamdulillah rabbil alamin ma rek damay sant yàlla ak yonent bi sama ñaari waajur sëñ Babacar Si bis bi rek naqar bi naqar àddina du naqar Ndakaar Njaay rek nu ngi ko dippee sëñ Abdou Aziz Al Amin sama papa rëbital la woon moom moom ma woon yoroon tibb Abdou Aziz Ndiaye te ban yoon bi ma woon yoroon bi si àddee sëñ Babacar si la ko jëlee ak sama bay sëñ Abdou Aziz Al Amin même jot si tamit noonu la def dafa yëkkati biyee maa ko jox ma ko ngir sëñ Babacar si ku xool baas bi rek ak xool nit ñi fi nekk ñëpp nga xam Abdou Aziz bu Al Amin moo ko leble xam nga nit dina yor lu jul jeex yor ay milliards wala nga yor ay millions képp koo sa yógu du yëg ndax yàlla tëral na ñëpp yàlla bàyyiwul kenn mais Abdou Aziz xoolul Tidiane xoolul Mouride xoolul Layeen xoolul tamit kuntu kuntu yi ñoom ñëpp la ma ko jàmbale bu Touba aayee nag yi mu fi yóbbu boo ñëwee Touba da nga yaakaar ne Abdou Aziz Ndiaye fi la nekk mais dafa am yar am teggin baaxul lool moo tax àdduna la may wax mooy ñu nuy gën a sarax yi ñu ngi gën a sore parce que man maay Habib Mbengue bu sëñ Babacar Sy ndax fa nee rek dafa am lu ma gis xam nga koy tëgg sabar ba tëggatoo sabar bëggatoo ku dégg am na lu tax kon lépp sëñ Babacar la rek ma bëgg rek sarax yi ni war a génne incha allah kon dama nekk si liggéey te liggéey bi may liggéey liggéey si nit ñi la ndax damay liggéey di nit ñi nii faju mais yooyu yëpp incha allah fan yi danaa am benn bi bu may def pour wax sarax yu ñu war a génne waat waaw du ñaan Abdou Aziz Ndiaye ñu koy sigi ndigaale di ñaan rek soxnaam si yàlla ko yàlla xara àjjana si barke sëñ Babacar si ko jàll ñoom Baye Ndiaye ak ñoom Babacar Ndiaye ñoom ñëpp jërëjëf ñun tamit kontaan naa si yéen. waaw lii moom xam nga ne koo gis xam ne nit kooku nit ku baax la quoi ndax moom àdduna moom xam nga yombul daal mais boo dundee tey xam nga ba yàlla jëlee la fi tey. nit ñi ñëw teewal la mu mel nii rek tey même boo xamul nit ki sax di nga xam ne nit ki nit ku baax la waaw Aziz moom suñu grand la suñu pàpp la rawatina mu nekk doomu géejawaay xam nga di jàppale jeunes yi nit ku baax la daal Aziz waaw ak Baye Ndiaye xam nga ñu ngi koy ñaanal daal bu baax a baax suñu borom defal ko jàmm waaw sonaam si dem tamit xam nga yàlla xaree ko àjjana te yeexee ñu ci barke yonent bi ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul eh, kontaan nañ fay naa leen. ngay doomu ci kaw Aziz en tant que doomu géej ñuy wax inna euh, di wax euh, yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko lépp lu doon def fii ci àdduna ñun ay doomu géej waaye lañ bu amee naqar ñun ñépp am nañ naqar c'est la famille tey mel na ni senegal ñoo am naqar ndax dee buntu kër buntu bu ne lay fëgg yàlla na fi yam. te ñu yéex ko fayante ci barke Seydina Muhammad. sa diggante ak Aziz. ñooñu samay frère lañu samay frère lañu samay frère lañu lu ma xew xewle ñoom ñoo ciy jiitu bàyyi lu mu xew xewle daf may woo ñaata nga bëgg ma fay la ma ne ko bàyyi man a yow du ay fayante barki démb rek dama def émission génn 2S mu taxaw samay tànk jël xaalis su bari jox ma kon ñooñu bu ñu amee naqar. mel na ni ñun ñoo ko bokk waaw ñoo ko bokk sax ñoo ko bokk amul ñun ñoo ko bokk ñoo ko bokk yàlla na fi yem ci barke Seydina Mouhamed yàlla na fi yem ñu ñaanal suñu papa ale njaay bu baax a baax a baax gudd fan ak wér yàlla na fi yem jërëjëf merci